Everybody! Thank you. invitation bi kontaan naa ci sama xarit bu rafet bi dëgg neexul ma ñëw jàkkaarloog sama goro muy medul gis ni mu def sama rakk ji muy Jami Gueye dëgg neexul kontaan ci moom trop du kontaan ci waa Sénégal gépp yu nuyu fépp fépp fu fan si Aziz Dabala nekk wala Kels wala Leuz VIP sañse maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waaye waaw Aïcha Aziz tey ñu fekk la xam ne mooy répétition Pakaay Mbaye yow na ku la wax wax sa diggante ak ndaanaane parce que doo fecc kenn ku dul ndaanaan waaye doo ànd kenn ku dul ndaanaan tey na dañ la fekk nga ànd ak ki xam ne mooy doomu banlieue la waaw ñun moom ay doomu banlieue ñu ñëpp ndax man maa ngi dëkk ginnaaw raay Pakaay mu ngi nekk ridis mais Pikine dafa yaatu te dañoo solidaire ñun waa Pikine ñun moom bu yow woo te woon sax dañuy jóg ànd ak yoo bi noonu ñun Pikine loolu ñu yaree quoi vraiment Pakaay doon ku baax doon suñu ambassadeur doon ndaanaan don ku bëgg ku bëgg lu baax vraiment mhm. comme ni nga koy waxee sànq man mom sénégalais yi xam nañ ma ci qualité ak quantité mhm. vraiment duma ma dox ci lu ñak fayda duma jéne ci lu ñak fayda mhm. wax deug yalla li fel artiste yi man duma ma fel parce que xamna fi ma juddoo ak fi ma yoro ak fi ma màggee muy Pikine ba tax na loolu laay yóbbaale chaque jour vraiment motax fi suñu ma fi fekk rek da nga ma fay wara fekk mais du damaa ñëw rek dóor ko kontaan lool vraiment momit di jàpp ci artiste Pikine yi Pakaay doon ku baax doon suñu ambassadeur vraiment ba na bis bi daal xam naa ne moom spectacle bu garaaw ngeen nar a gis ndax Aziz da ne mooy feccekatu Pakaay lépp aar la ba na damay bay sama waar ci lépp xuloo ma kenn xeexu ma kenn ku ma bëgg a naa la ku bëggul bëgg naa la maa ngi vie sama vie mais li may bëgg artistes yi li may waxaat man Aziz Dabala la aar affaire de noble la gars yi buñ ko géeree buñ ko nekk xoolal jàmbaar amul ku ñu dimbalee am yàllaa fi di jox ah ñëpp a am talent ñëpp a mën barki Seydina Mohamed yàllaa fi nekk li ngay tëdd di ko xalaat di ko wax yàllaa la ko jox defoo ci dara doo dara kon kon bu booy bi defee erreur noo jëndal est-ce que xam nga Ouzin Mbaye man lay wër waaw garant bu baax man aar bu tekkee wala métier bu tekkee day bari coow kon yéen bëgg bëgg maa ne bu leen kenn jaxase bu kenn taxaw ci coin di leen waaw bu leen kenn jaxase may nuyu Bijou Ngoné na ko sa plateau nag am na fu mu yéegal niveau bongo Bijou Ngoné liggéeykat la day defar liggéeykat la di kontaan ci yéen ñi ñëpp dëgg neexul xam nga le 12 moom dafa nekk événement boo xam tubarfakala macha allah adduna bi ñëpp koy xaar ba tax na ñun nag tey nag ñu ngi woon fii nii def suñu répétition yoo xam ne bu ñu fëlee ñëppay kontaan ndax xam nga tubarfakala ñun moom dañoo mën li ñuy def loolu quoi

pour le douze bi lépp ñu ñëw ci pakaay pakaay di doomi baale ya di doomi askan wi euh, tey ngeen bàyyi seen yitte yëpp ba heure bi ci jigéen ku nekk xam ne nag moom jàppale ko mu jàppale ñu aussi pour mën a defar ba mu gën a baax comprendre nga tabarfakàlla macha allah loolu moo tax moo war a lii en tant que jigéen ban message ngay lancé li xam ne mooy sa moromu fecckat yi ku yegg xam ne ne coow li bari na seen diggante nday njaay baan na yaa mhm. ki xam ne moo di nday yërim coow bari na kii moo dàq lëmbal kii ndaa teel gi kii moo ko moom ndaa coow bi moom àdduna bi ne man bi ñëpp xam pagaay moo ko indi man maa ko baan na ma de pagaay moo fi indi ndaa teel te maa ko fi fecc moo tax ndaa teel nga ci biir léegi ku ma ah. fekk ma fi ñuy feccee ndaateen la maag yow ñu ko fa ba mu saf waaw parce que xam man maa ko fi njëkk indi parce que dëgg neexul maa ko fi njëkk a lëmbal ndaateen la pagaay ko génnee maa fi fecc non man amul daw coow sama liggéey laay def te ñëpp xam sama liggéey dama koo mën hmm. barke borom Touba ndax fu ma dugg ñëpp yuuxu xale yi dañ may may ma jàll force la obligatoire déggoo ma de man lu ma dugg dama koy lëmbee ndax noonu <laughs> ni ma mel noonu laa mel fu ma dugg dama koy lëmbee non du fil sax sama liggéey la xam nga dara boo ko mënee il faut nga wan askan bi ba xam ne lii la nga mën carrément man li ma mën fu ma dem dama koy wane ba ñu xam ne carrément Sofia lii la mën mais yow da du question pànk fulla la fayda rek man du ma xeex du ma xuloo du ma xuloo du ma def dara man su ma dajeg damay may xeexee man ni may xam nga nan laay xeexee damay sangu ba ma set solu nice parfum ba mu xeeñ ñëw taxaw ci kaw seen takk samay fer lëmbal ba ñëpp ŋaang ma romb leen sans dem sama yoon waaw xam nga boo jaaxle da ngay ŋaang <laughs> xam nga événement bu mag la il faut rek nga def lu mag ah. dëgg neexul waaw le 12 incha allah ngeen fekk ñu foofu nag ñu ànd ambiance def ba mu neex ba mu baax ndax xam ngeen le 12 moom benn bés la ci àdduna bi dëgg neexul da ngeen ma fa fekk boo leen fa ñëwee jël leen samay ndomba ndànk te ngeen bañ ko parti parti ndax samay mbir kenn du ko parax paraxee tempo rek maa la wax loolu. jaar <laughs> naa leen ami chers téléspectateurs yéen ñi safoo 5 TV te di ko seetaan nee naa leen man Fia tarkal damay am plaisir euh, di xool li ngeen bëgg saa su ne ma ciy dox tey nag ñoo ngi woon seesi ki xam ne mooy Pakaay euh, Pakaay national waaye Pakaay international doomu Pikine doomu banlieue kenn dootu ko laajte ci mim réew mu yàgg tëgg événement mu fees délai di bégal gars yi waaye boo xam ne le 12 novembre mu tëgg ko ay at tëgg ko ay weer maintenant mën nañ ne jour J de euh, Papa Bécaye ziar naa sama doom ji maa ngi lay fay ak waa 5 TV yëpp ah di am mbégte vraiment yow it ah vraiment gis naa liggéey bi donc du nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy ci 5 TV donc di wax né tay gis nañ ni mu démé mais lépp rek préparation pour le 12 là incha ay ca événement bi nag ñëw na kenn samedi mën naa ne li si des bareetul euh, kii nga yàgg koo toog gis nañ répétition yi gis nañ changement bi euh, gis nañ kii xam ne mooy Pakaay Mbaye rythme bi mu indi changement bi lan moo ko waral waaw li ko waral mooy liggéey rek xam nga donc tey événement bu toll nii bu yàlla dogalee nga war ko def donc da nga ciy liggéey c'est parce que ku nekk fa war a teew bu dee neex na yàlla donc foog ñu jox gars yi public bi loo xam ne donc bu ñu ñëwee xam nga yokk li nga xam ne moom mooy ambiance bi yokk li nga xam ne mooy charisme bi yokk lépp mhm. donc dañu gis Pagaye ci beneen facette peut-être tay da ngeen ñëw tombek am na artistes yoo xam ne war nañoo def ak ñoom duo ci affaire bi donc fan yëpp ñu ngi doon répété mais comme jour si mooy mooy mooy mooy mooy waaw mooy deux donc incha allah bientôt rek bu neexee yàlla dinañu gis li ñu liggéey incha allah. moom laay wax rek loo doonul taalibe mënoo nekk sëriñam donc yàlla dafa dogal man dama am fu ma jaar ci showbiz am fu ma jaar ci art mhm. donc fi ma jaar mooy donc dama ànd ak artistes yu bari yoo xam ne tey ànd bi ma ànd ak ñoom ñii fii ci ci ci ci ci dëkk bi ñi ma ànd ak ñoom bitim réew. donc nag and euh, bi ma ànd ak ñoom moom moo ma may maam expérience. donc et puis comprendre lu bari. ah Ador euh, nag euh, ginnaaw bi yàlla defee li muy def ci nit ki ndax nit ki tamit. Euh, li may def nii donc am na ñu bëri ñu koy def mais xëy na suñu borom mooy xool lu ko neex def ko ci doomu aadama euh, boo nee loo wax mu saf ñëpp donc nag loolu dama koy sante yàlla mais taxul tamit ma toog di nelaw donc yàlla sunu borom bu la defalee dara da ngay xam li mu la defal et puis da nga koy téye ni nga ko war a téye di gësu tout le temps li ma sama papa ji mi di wax am na lu la sunu borom may mais nag am na loo xam ne da ngay dem nga liggéey ko nga wut ko yaa ndax ku xool Mor Sana Maray noonu la demee Eddie Kenzo moo ko defoon xam nga après ma jël ko def ci mbalax meek affaire yooyu bi mu amee gis nañ ne àdduna ñëpp mooy loolu bëggee nañ ko waaw Aïcha da tey dañuy des ci bi ku ne Pekaay wax artistes yu muy àndal mm. ku ne Pekaay wax waa banlieue mm. euh, sa digganteek bi ne mooy Pikine gi xam fa nga fa nga fekk baax mm. boo xam ne Pikine moomootu la mais sa relation ak waa Pikine mu nekk complicité boo xam ne dafa waa waar. waaw sant yàlla c'est parce que euh, moom laay wax rek euh, euh, ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla defee ñu ñu nekk ay doomu banlieue fierté lool nag dëkk Pikine xam nga yaroo Pikine màggee fa xàmmee fa lu bëri donc dañ ciy sant yàlla di wax ne bon Pikine moom man ak ñoom bis doxul ci diggante bi c'est parce que li tax sama diggante ak ñoom mu demee nii c'est parce que man. li ma gëm moom mooy ginaaw yàlla artiste bi li ngay doon donte ka pagaay léegi universel la ñëpp a ko xam mais na xar day am gétt ginnaaw yàlla sama door foofu la ñoo ma dooleel ba mu demee nii tey kon damay damay sant waa Pikine di leen gërëm bu baax a baax et puis tamit di profito di len wo ci le 12 bi di len wax ne nañu teel a génn ñëw dalal gan yi c'est parce que fi la mëna profito rek mënu ma dem fep mais mën naa taxaw fi wax ñëpp dégg ma donc képp ko xamné ne ngi may dégg wala nga gis ma donc ma ngi profito di la wo pour le 12 nga ñew soutenir sa dom sa rak sa xarit hein wala sa mak wala lu mënti doon waaw donc sama digënté ak ñom mom benen affaire la benen affaire la moy man artiste la bo xamné philosophie bi ma am mooy ginnaaw yàlla ak sama wéjur dama gëm né ñun li ñu doon nit ñi ñoo ñu ko def

ku xam pagaay xam ne pagaay yaatal rek la xam donc nañu ñëw ñu ànd ñu bégee à door de am na yeneen artistes yoo xam ne dama am ak ñoom rapport bu nice boo xam ne ñu Pikine ñii ñi ngi dëkk fu nekk xam nga donc maa ngi woo ñëpp di wax ne ne ñëpp ñëw ñu ànd bégal Sénégal dama bëgg daal vingt et heure bu neexee yàlla na fa fekk ñëpp waaw si si si si vingt et une heure c'est parce que spectacle bi ñu war a def la dafa war a am ay première partie ah dafa war a am ay ndaanaan yoo xam ne dañoo war a. dàll yi moom baa dina ñëw. non mais mais mais bu baax a baax a baax. waaw Demba Demba bu baax ñoo nekkoon demba répétition yi mais xam nga comme ñoom moment bi ñoom it ñu ngi seen bopp di lijjanti seen i déguisement seeni seen i affaire moo tax mu bàyyi gars yi tey ñu ñëw moom mu dem gérer donc de toute façon daal li ñuy ñaan mooy yàlla may ñu àggale ak jàmm buñ ci àggee nag. dinañu gis spectacle ak beneen pagaay bu màgg bu bokkul ak bañ daan gis. nañu ñëw ñu jàpp ci na ñu ñëw ñu soutenir ma donc incha allah ba nga xam ne euh, beneen yoon tamit artiste bu xewle ak foo mën a dëkk ñu ñëw sotle ko ba mu neex sa parce que Sénégal musique bi dafa war a dépasser fii waa dafa war a dépasser fii mu nekk dafa war a dem feneen ak feneen international ak yooyu. te man philosophie boobu laa am donc loolu laay wax beneen bi ci des mooy maa ngi am contentement ci ñëpp di wax ne bu ñu waxee lu dérangé ñu ngi jégalu ah bu baaxee ñu xam ne euh, sunu borom la di ñaanal yàlla ñëpp am jàmm ah yàlla may ñu àggaleeg jàmm ba li ñuy séntu sunu bis bi sunu borom defal ñu ko.